bu leen fàtte ne defet dafa metti man nañu ne dañu ñoo gañe rek ñu toog mais dañu ne ñàkk bi ñu ñàkk lu tax ñu ñàkk parce que dafay mel ni ko kon yëmbal seen électorat rek dañu bëgg alors ko ñu yëmbal dafa am benn pacte bu ñu ak ñoom muy liggéeyee yëmbal ñu dem continuer action sociale yi noonu def ñu continuer ko tabax jàkka ñu noonu def ñu continuer ko dimbali formation jeune femme ak

fan la bëgg a jëlee yëmbal ak fan la ko bëgg a jëm jëmale te je pense que loolu la waa yëmbal waaye comprendre loolu la la majorité de la jeunesse comprendre ba tax tey jii ñu adhéré ci projet le ministre Amadou Ba ak et le Benno Bokk Yaakaar ba tax tey jii ñu votal ko massivement te ñuy détaillé les cas de transfert de Balagay Gaye yëmbal ci dañu koy dañu koy gañ. yéen ay journaliste ngeen. centre yi am ci yëmbal yëpp escrocs yi fa xam ngeen ko bu demee ba Afia. ñu yëkkati Balla Gaye ba ci kaw dóor ci suuf kon ngeen xam ne yaa am travail de titan qui est fait bu ñu demee ba Ababacar Sy ñu yëkkati Balla Gaye ba ci suuf ba tànk yi di weex dóor ci suuf ngeen xam ne yaa am travail bu ñu demee ba Madi Ndiaye bi nga xam ne ma wax leen yu bare bare bare bare parce que Balla Balla Gaye daf daan def ay transfert mais transfert yu bare bare bari daaw ko def keneen santé daf ko doon concentré ci Madi Madi Ndiaye parce que foofu nga doon def ay neuvième pour mën a sécuriser ba mais bu ñu demee ba Madi bu ñu demee ba Madi Ndiaye ñu yëkk ci Balla Gaye ba tànk yi feeñ ñu waaj a doon ci kon ngeen xam ne y a un travail vraiment qui a été fait. que le ministre Amadou n'est pas n'est pas parti c'est le Benno Bokk Yaakaar et que le ministre Amadou Hott avenir politique am bi mu signé ak yëmbal weesu na politique si il a une vision au-delà de la de la politique walaay et que le président Macky Sall bi mu koy jël jëlu ko ngir politique le ministre Amadou Hott baxam sax wax deug yalla baxam sax mo ñëw ak gis ñun ñu sonné ci terrain motax tax mu ñu jappalé rek

C'est Monsieur le ministre Nous n'apportons pas une réponse à Baradec, mais nous apportons des éclaircissements. xam nga yow la yow la du man Vous, fa yow la divertir c'est normal que nous ayons des éclaircissements. Répondez-nous, répondre parce que Bara est un peu mais Maintenant, comme nous avons dit, il y a un éclaircissement par rapport à l'eau Maintenant, vous avez parlé aussi de là, bon, est-ce que nous avons analysé fortement la défaite Je pense qu'analyser la défaite, définir le local, moi, on va aller à est-ce qu'on est plus loin 4 000 kg de petit, et qu'à où 800. 4 000 moins 800, ça fait combien de cas Combien 2 000 et quelques 3 000 et quelques nous, dañuy avancer moom il il régresse c'est ça en fait la réalité ça ça c'est la réalité du c'est ça nous nous avançons mais lui il régresse reste. en termes de d'électorat politique nous sommes en train de faire des efforts il faut ngeen campagne benn affaire nous, depuis 2014 nous ñu a ñun tant que opposition tant qu'opposition, on est en train de faire tout pour jël euh, mairie bi de boo xoolee Et bi amoon en 2014 nga ñëw élection yi di weesu locale yi ak élection législative bi nga y' a un travail de temps qui a été effectué et ça aussi aussi il faut le il faut le saluer et le reconnaître à sa juste valeur je vous remercie. 5200 yi nga xam ne moom jox ko ci fichier bi wax nañu ko léegi li ko waral ñun ci kaw Yeumbeul la ñu wax en Yeumbeul Sud transfert yi la ngay résidence. di joxe résidence di def lu ko neex. ba dafa wax lan conférence euh, bi doon def wax parce que xam na ñun dañuy tenir conférence de presse pour def suñu ba yu yi mu def devant yëg na ne dañuy def point de presse.

bennoo lay votal donc waral ñu carte te a ñu si bari bu ñu demee ci commission bi gisuñu seen carte dañu dem ci commission bële mais bu ñu au niveau de la DAF dañ a effectivement sa carte ngi sud nga dem sud centre centre Diop suma ko gis gis sa ci mais c'est tout un problème parce que moo tout le temps nous gagnons. si on refute ne Balla Gaye du maire parce qu'il n'a il n'a jamais été élu par les Yeumbeullois nous avons nos raisons peut-être vous les journalistes voilà peut-être le monde extérieur man nañoo jàpp ne dañ koo soxale wala dañ koo bañ tel n'est pas le cas parce que nous avons des informations de taille yoo xam ne yu waroon tax ñu de 2014 depuis élection bu ñu def Yeumbeul daf ko ñak bu ko gagner illégalement parce que porque ay fraude la ci ay sàcc la ci ay jubdaaj